asalaamaaleykum euh, chers internautes maa ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen siyaare euh, émission parlons-en waxtaane ko xel-xel yi ñi ci toujours ak sunu grand le doyen Jules moo koy lay delloo ziar Abdou Khadre. maa ngi lay siyaare teg sa wàccuwaay euh, di wax ne rek internet yi ñun namoon nañ bu baax a a baax mm. wax dëgg yàlla tey moom xam ne rek. grand présentateur comme ni ñu ko xamee saa su ne naa ñu xaaral ci rek nga jókkeeti naka seddaay ah seddaay baa ngi nii rek kéemaan <laughs> mais nag persister gul quoi waaw ah, persister gul moom bëreegul noonu quoi mm-hmm. mais nag ñu ngi koy dëngale waaw ni moom vraiment ngi nuyoo moom ngi nuyoo damay ragal ci <laughs> ah, ko gérer rek mais ñu ngi lay fay nuyoo di nuyu internet yi ñoom ñëpp di leen na leen aussi koy tàmm mm-hmm. di di leen wax rek bu ñu tàyyi aussi di abonné di ñu topp aussi en même temps di like di partager émission yi ñu leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci tey seen euh, émission parlons-en dañuy duggaat tey fi ñuy tàmbali tàmbalee toujours actualité moom Sénégal ñëpp ñu nekk actuellement munoo wax ba bàyyi te tudd Ousmane Sonko. Mm-hmm. ak ñun passif wala mm-hmm. ex passif. Ah, moom moom ah, actuellement Sénégal moom amatul beneen information wala actualité boo xamante ni vraiment mën nañ ko wax budul ni. Sonko ngay wax. ak lu ñeel wàllu yoon lu yoon ak euh, état mm-hmm. loolu lañ fi waxtaanee. Mm-hmm. donc tey euh, suñuy waxtaan ba tollu fii. Mm-hmm. ñu bëri dañuy xaar actualité ci beneen côté parce que actualité dafa yaatu. mais jàpp na lii am solo te am solo loolu mooy li nga xamante ne bii nii nekk ci moment bu nga xamante ne moom la ñuy actualité en temps réel. actuellement ci ñu toll li fi xew démb gis ay bokkaay Ousmane Eh, ñi nga xam ne ñoo koy layal génn def benn déclaration expliquer li waraloon seen ndaje boobu ñu mooy eh, def rabat d'arrêt mm-hmm. rabat d'arrêt bi mooy jéem a fexe nu ñuy def ba atte bi yoon atte woon Ousmane Sonko weddi woon li nga xamante ni bii nii moom la juge Sabassy Faye joxe woon mm-hmm. eh, tey état am ndam ci kaw Ousmane ñoom ñuy demandé waat pour ñu attewaat ko mais boo atte woon dootuñu ko attewaat mm-hmm. duñ ko sax assister mm-hmm. donc dañu bëgg ñeneen ñoo xamante ne bi nii ñeneen ñoo xamante ni ñoom ñooy euh, jëlaat dossier boobu attewaat ko mm-hmm. ban ban ban ban xalaat ak ban gis-gis nga ci am waaw Abdou comme ni nga ko waxee noonu la demee euh, démb dañu gis euh, collectif des avocats yu Ousmane Sonko dem delluwaat cour suprême yaa ngi dégg déposer une demande de rabat d'arrêt ginnaaw comme ni nga ko waxee bis le juge Sabassy Faye joxe woon dëgg Ousmane Sonko ne nañ ko jox delluwaat ci fichier électoral bi ba pare dañ ko delloo ci fichier électoral bi jox ko fiche de parrainage am euh, ay avocat wu état bi defoon pourvoi en cassation dem euh, fi nga xamante ne moom moo di cour suprême pour neenal loolu mais euh, gis nañ ne carrément avocat Ousmane Sonko yi tamit won nañ ne on va pas se laisser faire ñoom dinañ fexe ba ba véritablement Ousmane Sonko bokk ci ñee seen xeex mooy bu Ousmane Sonko bokk les avocats de l'État mm. mais euh, les avocats de Sonko mooy dafa war bokk ci kii ñoo tax ñoom it biñ biñ bi euh, pourvoi en cassation bi demee ñu demaat cour suprême ñu attewaat affaire bi cour suprême ne léegi euh, gàntal na décision bi nga xam ne Sabassy Faye joxe na ko ba pare renvoyé leen tribunal bu Dakar mu nekk date boo xam ne day tombé fiche parrainage yi passé parrainage collecte de parrainage bi dafay weesu les avocats de de Sonko ñoom tamit ñu jàpp ne euh, affaire yi euh, fi mu toll nii li fi am ba am ba am mooy que décision bi nga xamante ne nii tamit Cour suprême jël nañ ñoom dañ koy gàntal nuñ koy gàntale mooy mooy ñu def rabat rabadare boobu nag loolu moo sabab. lépp lu ñu àtte woon fi mu nii dañ koy gàntal waaye dafa am lu maanaam demande ba dara boobu dafay tax lee tamit ñu gàntal ko waaye tamit dootuñu ko yóbbu Dakar bi nga xamante ne ni date ba day dem ba tomb collecte day tombe euh, collecte de parrainage yi jeex mais cour suprême moo koy àtte mais euh, maître Tall ci li mu wax dafa ne cour suprême bu koy àttewaat ñi ko àtte woon duñ ko àttewaat xëy na ñooñu mën nañ siéger ci biir cour bi mais du ñoom ñooy àttewaat donc ñeneen ñoo koy àtte voilà mën nañ siéger mais duñu ko attewaat ñeneen ñooy attewaat ce qui veut dire que euh, te euh, rabat d'arrêt neem ci ko waxee euh, dañu nekk dañu nekk ci jamonoy électorale affaire bi dafa war nekk loo xamante ne lu gaaw la ñu atte ko ñeneen delloowaat Ousmane Sonko ci ay ay am comme ça mu a bokk ci course bi noonu daal la ko waxee ci gàttal moom métti daal. mais am nga yaakaar que ni ko boolewaatee wate buñ waaw xam nga euh, avocat yi ñoom toujours ndam ndam li état amoon seen kaw mën nañ ko amaat parce que attewaat moom hmm. kii attee bu ñu demander pour ñu indiwaat ñeneen ñu attewaat ko ñoom du ñoom ñoo koy choisir je pense mais am na benn yéen boo xamante ne nii euh, xam nga bu ñu atte ba pare dañuy signé mais moom dafa refusé de signer Aïssata Diallo Ba voilà donc yooyu yëpp nekk ay mbir yoo xamante ne ah, nii loolu wala dégg yooyu nekk ay mbir yoo xamante ne dafa retiré wu ci dafa retiré wu ci affaire yi pour bañ a apposer sa signature léegi est-ce que bu buñ leen di bu buñ leen di attewaat mu nekkaat ñeneen ay seen yeneen i collègues yu koy attewaat est-ce que duñu gën a càmbaraat càmbaraat mbir mi maanaam dem ci ak minus yi waaye demaat dem ci ak demin boo xamante ne nii euh, sénégalais yëpp euh, buñ bu nouvelle bi wàccee euh, seen xel dana dal. maanaam moom moom génnoon ci audience boobu mu génnoon maanaam li ko waraloon jàppoon jàpp ne dafa nekk ñi dañu doxee euh, boo xamante ni jaarul ci yoon wala lan la. waaw en tout cas en tout cas en tout cas. ak ak choix ñu bëgg a bëgg a. waaw am nga en tout cas gis nga euh, si on remonte sur l'histoire euh, neexul ba neexul dama la wax ne carrément waxuma sax affaire cour suprême mais suñu yéegee ci kaw bañ na Ousmane Sonko dañ ko jàpp jugé par contumace jàpp ko. su juste saa xam nga fan la sukkandiku. Mm-hmm. ah ah mais kuñ ne conti un un con euh, kuñ jugé par contimence mmh. mais dañu ba pare ñu jékkiwaat jékki dem jàppi ko këram même bu dee ci beneen dossier lañ ko jàppee mais jàpp nañ ko le contumace téye nañ ko mmh. kon le jugement est anéanti de plein droit lañ wax le jugement est anéanti de plein droit maanaam atte bañ ko atte moom dafay nërmelu donc léegi nag gars yi nga xam ne ñoo génne ñoo génne Ousmane Sonko ci fichier électoral bi ah, ah. Mm. dañ ne dafa am condamnation dafa am condamnation mm. condamnation deux ans boobu moom moo tax ñu kii mais gars yi nee nañ condamnation boobu wérul parce que ki kiñ condamné woon ki jugé woon par contumace ah di atte boo xam ne gisoo ah gis nañ ko kon léegi dañ ko war a attaat ah. kon waruñ ko rocc ci fichier électoral bi léegi li tax ñu teg fay gisuñu ko sukkandiku ba jàpp ne ki si jëm boppam mm. Hmm? comme mu ngi ci kaso bi si jëm boppam comme mu ngi ci kaso bi kon kay dañ ko war a attaat. war kon ku ñu war a attewaat fii ak attee guñ la. Hmm. sa tur dafa war a nekk ci fichier électoral bi ba keroog ñu lay atte bu ñu la attee ba yoon ne nag nangam ak bu ñu sukkandikoo ci nangam ak nangam daan nañ la nangam ñu ne Rosette sa tur ci fichier électoral bi mais comme jàpp nañ ko jugé ko par con euh, maanaam jugé nañ ko par contumace euh, euh, ñu ne léegi. condamné nañ ko deux ans pour corruption de la jeunesse ñuy jékki-jékki ba jàppi ko këram. mais par contumace mooy di ate koo xam ne néewul ci réew mi néewul ci réew mi te or que bi ñu koy àtte moom mu ngi biir bi woon këram léegi bi am ñu ko xasee ba jàpp rek dañ ne jugement ba ñu defoon le jugement est anéanti de plein droit waaw mais léegi nag loolu am loolu kon maanaam ñoom su waruñu woon sukkandiku ci deux ans yooyu ñu ko tëj ko ci fichier électoral bi yaa ngi dégg buñ ko xasee ba jàpp rek dañ ko war a àttewaat mm. dañ ko war a àttewaat foofu la saba si ñoom nag da ngay dégg Ismaïla Madior Fall bi mu fi nekkee ministre euh, bi fi nekkee ministre de la justice mu ne waa su fekkee ne dañ ko jàppoon ci affaire contumace beeg yooyu mais nit ki lañ wax c'est la personne même bu fekkee ne ñaar lee ko jàppee leneen la ci leneen lañ ko jàppee mooy dossier boobu mu am beneen leneen lañ ko jàppee mooy euh, kii bi mu amoon nag gendarmerie boobu loolu lañ ko jàppee woon jël yeneen huit chefs d'inculpation teg ko ci moom moom lañ ko placé sous de dépôt qui n'a rien à voir ak condamnation deux ans boobu condamnation deux ans bañ ko jàppee ci dossier bee rek ba Ousmane Sonko dem dem euh, dem dem dem dem prison rek donc kañ doon wër ne gisuñ ko jàpp nañ kon donc dañ ko war a àttewaat dossier Adji Sarr lu ñu war a àttewaat la d'accord te léegi gars yi ci dossier Adji Sarr moom lañ sukkandiku ba rocc ko ci fichier électoral bi parce que ah dañ nekk loolu la non wala at bu mujj bi moom loolu terew ko ne kandidat. xam nga dañ ne dañ ne. Hmm. dañuy jugé Ousmane Sonko par contumace. yaa ngi dégg. non li mu li mu jëflante woon soxna si la ba ñu te ba ñu daanoon ko ñaari at ak ñaari at kas loolu moo ko teree nekk candidat wala. mais xam nga ci biir daan ñetti at boobu. ñaari at dañ ne ñaari at boobu. Hmm. daanu ñaari at boobu dañ ne kuñ gisul la. non non moom moom bu Adji Sarr la ñu wax. waaw moom laa la. waaye mais moom moom bu soxna soxna soosu gendarme bi. gendarme boobu loolu atteeguñ ko. ah boobu looloo yóbbu Sonko kaso. d' accord mais at. looloo ko yóbbu kaso parce que daanoon nañ ko ba pare Ousmane Sonko. daanoon ñaari at ñaari at ci ci corruption de la jeunesse boobu ci lañ sukkandiku ñoom ne rocce nañ ko. ah d' accord ci fichier électoral bi. mais moom li ko li dox digganteem ak gendarme boobu noonu. ah euh, loolu lañ boole ak yeneen tuuma yu ñu tegaat ci kawam appel à l' insurrection yaa ngi dégg yaa ngi Euh, jël juróom ñetti chef d' inculpation teg ko ci kaam ces chef d' inculpation yi teg ci kaam yooyu attee guñ ko ci donc bu ñu sukkandiku moo tax ñu ne ñaari dossiers yi amul benn bu tax Ousmane Sonko ñu war ko retirer ci fichier électoral mais attee guñ ko ci mais ñu toll ni Sonko dañ ko placé sous mandat dépôt te balaa ñu koy yaa ngi dégg il est présumé innocent maanaam présumé innocent la yaa ngi dégg il n'a pas accepté attee guñ ko ba mu accepté les faits qui lui sont reprochés maanaam liñ koy tuumaal munaguñ wax ne moo ko def parce que duñu sukk procureur dafa sukkandiku ci ay ay ay mbir ay mbir jël juróom-ñetti chef d'inculpation yóbbu Ousmane Sonko Ousmane Sonko mandat def la ne ci lee te dossier bale ci dossier bi mu amoon jàppante bi mu amoon ak gendarme beeg ci loolu lañ ko jàppee boole ko téye ko hmm. kooku atteeguñ ko hmm. kuñ atteegul a ko waruñ ko roccee ci fichier électoral loolu loi bi hmm. parce que il faut ñu atte ko lee tuumaal lañ ko def parce que nit ki mën nañ ko placé nañ ñu nit yàgg nañ ko placé sous mandat de dépôt mm. ñu jékki-jékki génne ko atte ko génne ko mm. liñ ko doon toppee yëpp ñu ne amul mm. yaa ngi dégg parce que dañ lay placé sous mandat de dépôt wéel pour xam ndax mandat de dépôt mooy dañ la fa déposé di wéel enquête bi ci yow léegi nag mën nañ wéel ay enquête ci yow ba mu yàgg xool gis ne lañ lay toppee yëpp ci bari amul ñu génne la libéré loolu gis nañ ko ba tàyyi léegi bu dee le cas euh, euh, le le cas euh, cas bi nga xamante ne ci lañ ko placé hmm, sous mandat de dépôt muy juróom-ñetti chef d'inculpation yi teg ci kaw juróom-ñetti chef d'inculpation yi jotewul ak dossier Adji Sarr boobu te dossier Adji Sarr bi nga xam ne tamit tamit moo taxoon ñu daan ko ci ñaari at ne corruption de la jeunesse jugé ko par contumace bañ ko jàppe ci beneen dossier boobu rek mooy ko doon war jàpp nañ ko professeur de droit yi yaa ngi dégg constitutionnaliste yi yaa ngi dégg expert yu bëri ci wàllu droit nangu nañ ne carrément si jëm boppam keroog bañ jàppee Ousmane Sonko le jugement est anéanti de plein droit mais fa le juge Sabassy Faye sukkandiku ba wax ne carrément kii amul benn condamnation bu tax ñu war ko bañ ñu war ko rocce ci électoral nañ ko delloo ci fichier électoral a ah état bi ne loolu ñoom d' accord ñu ko ñu dem attaquer décision wu Sabassy Faye bi par contumace hmm. dañu ne dañ joxe woon benn délai de quinze waaw donc euh, diggante boobu dañuy ne moom bu demoon. Mm-hmm. yóbbu woon boppam ci yoon. Mm-hmm. ñu ci la ci la àtte boobu di ànd comme ni nga koy waxee. Mm-hmm. ci lay nul. ñu mën ko àttewaat. ci ci nit ñi mën ko comprendre. Euh, mooy baatu anéanti boobu ngay beneen bi stop mooy yoon gisoon ko dem jëlee ji ko. comme dañ ne dañuy àtte xam ne nag teguñ ko ba xamul fu mu ne ci réew bu demoon jébal boppam yoon ci lay loolu di di di. du narmeeloo bu narmeeloo ñu àttewaat ko. waaw donc waaye bu ko yoon jàppee tamit ñoo yem. Ah bon ñaar yooyu am nag c'est-à-dire que bu buñ ko attee jugé ko par contumace mu jàpp ne deux ans yi ñu ko teg. waaw mais diggante bi bi ko yoon jàppee. waaw fekk na délai boobu jàll. est-ce que du ci loolu lañ. sukkandiku nag mais wax rek jàpp xam nga problème bi. c'est-à-dire que bi loolu xam nga problème quinze jours yooyu c'était pour lan mooy suñ ko attee mu mu def euh, suñ ko attee mu gis ne lañ ko teg deux ans yi ñu ko teg ci dossier am ak Adji Sarr yoon. corruption de la jeunesse bu ci d'accordul hmm. il mun na dem constitué wu en prisonnier eh, yaa ngi dégg ne carrément liñ àtte d'accord ma ñu àttewaat ko hmm. par contre def loolu hmm. mais ci diggante bi ah. ci diggante bi vous vous souvenez que moom bi muy jóge fii Ziguinchor di def caravane de la liberté ci lañ ko jàppoon yóbbu ko ba këram bàyyi ko fa daal di barricade këram ci période bi ñuy barricade këram ci lañ ko jugé parce que tamit il faut ñu wax les choses telles qu'elles yaa ngi dégg ci période boobu lañu ñu barricade këram ci période boobu lañ ko atte daan ko par contumace te mu ngi woon këram. bi mu ñëw gis nañ ko. yaa ngi dégg. Ah, ñoom ñoo ko fa yóbbu. bi muy bi sax dégg nañ ko. mais mais da ngay ne ñoo ko fa yóbbu. ñoo ñoo ko jàpp ci jàpp. yóbbu ko këram yóbbu këram. Ah. ba pare toog fee ne atte nañ ko daan nañ ko <laughs> C'est-à-dire que uh-huh. il y, ya y a des trop d'incongruités ci ci affaire même ñun ñi nga xam ne du ñu ay experts euh, expert en la matière sax mm-hmm. xam nañ ne lii dafa nekk loo xam ne lii daal loolu la def ci sunu xel la loolu yooyu yëpp ñu ci sukkandikoo mm-hmm. li ñuy wax mooy bañu ko daanee bañ ko daanee ci loolu yaa ngi dégg ñu jékki beneen dossier am mu am genre kii ak gendarme bu jigéen bopp ñu jàpp d'accord bu ñu ko jàppee que jugement boobu day daal. waaw d'accord léegi ba tey ma jëm ci euh, ba tey ci ex hmm. mais problème bi nag dafa am tuuti provocation bu ci xaw a am quoi. Hmm. waxuma ko nag pour kii. Hmm. mais li ma gis moom sama xalaat bu gàtt quoi. lan moo tax toujours Pastef bëgg a bëgg di victimiser wu rek ci askan wi. lu waral loolu. parce que tey dama gis ñetti gars yi ñu jàpp ni euh, Pikine. ñetti militant wu ex yooyu noonu doon doon bëri mais quartier général boobu ñu ñu ñu ko daf leen ko. quartier général. c'est que mais mais nag amul est-ce que animation ak donc d'après li Habib Faye wax. Hmm. il y avait pas d'animation parce que nee nañ dañu defoon sax fañ doon defee affaire bi dafa am rideau en fer. ah parfois su nit bëggee ñëw sax dañuy yéegal rideau bi nee na nit ñi mën nañ dem foofu vérifier pour en savoir davantage. Hmm. pour gën a am leen ci leer donc moom il a été clair mais problème bi moy nekkoon na quartier général wa Pastef. mais ñoom euh, avant ñu fay def pour pour euh, par euh, pour col pour la pour pour pour pour collecter parrainage Bassirou Diomaye Faye ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo préparé woon nañu yu bare bare bare bare maanaam lépp loo amoon ay effigie Pastef lépp loo xamante ne lu laale Pastef dañ ko fa jële ba ci ay photo Pastef département Pikine yooyu yëpp dañ ko fa jële parce que xam nañ ne Pastef déjà dissous di dissoudre nañ ko waratul am permanence waratul am dara mais ñoom ñu dindi fa mboolem loo xamante ne lu ñuy luy niroog luy niroog affaire u Pastef léegi nag indi fa nag ay effigie yoo xamante ne effigie wu candidat Bassirou Diomaye Faye yaa ngi dégg yooyu lañ fa indi pour que euh, véritablement ñu mun ko def comme seen quartier général di fa dajale ay nit nit ñi bëgg a ñëw collecté ñu ñëw collecté wala sax dëgg na di fa dajale ay nit samp ko mu nekk seen point boo xamante ne euh, fa la ñuy collecté ay parrainage maintenant euh, suñu sukkandikoo ci Habib Sy li mu wax mooy que biñ leen jàppee dégg nga li mu wax euh, ci sunu naataango yooyu ci micro sunu naataango yooyu Sénégal set dafa wax ne biñ jàppee booy yi yóbbu leen foofu wax nañ leen nee nañ leen du du pour ay affaire parrainage bee tax ñu jàpp leen yaa ngi dégg. mais seen parti bi dañ ko dissoudre waa dina ko xam nañ ne dañ ko dissoudre mais boo xoolee foofu amu fa lenn loo xamante am na nag ay photo photo Bassirou Diomaye Faye comme Bassirou Diomaye Faye yaa ngi dégg candidat la c'est normal que ay nit yaa ngi dégg ay nit dem collecté ko parti candidat mais mais mais candidat la mais mais mais mais mais. non non yow man yow nga dégg li léegi parce que du de. parce que dañ ko choisir seulement pour pour pour collecter ay. ay da nga naan da nga ne xam nga problème bi xam nga ñoom dafa am benn affaire du ma nangu si ñoom ba parce que. ñoom dañ ne. bu ñu même Ousmane Sonko sax wax na ko. bu leen ma topp topp leen projet bi léegi bu leen neexee ñoom ñu am juróomi candidat ñoom leen neexee ñu juróomi candidat yoo xam ne ni. dañuy uti parrainage. mais benn mooy def waaw. ah d'accord waaw pour uti parrainage waaw. waaw pour uti parrainage. léegi nag ñoom ñëpp buñ ci calee kenn kenn bu jàllee kenn kooku mooy porté ji projet ba. Hmm. stratégie la ñu nekk ñoom ak ñoom ak état du Sénégal yaa ngi dégg loolu ça fait partie de leur de, leur stratégie seen stratégie boobu oh, peut-être loolu moom moo tax peut-être looloo tax ñoom su jëm boppam Bassirou Diomaye Faye mais ku uti parrainage kay candidat mais parce que est-ce que amul yeneen candidat loolu kay wax naa ko ay yoon yoon. Ah, d'accord yaa ngi dégg. Euh, waaw <laughs> na nekk mais xëy na peut-être loolu dañ koy dañ ko def pour ëllëg bu ñu arrêté kii ñee dem wala bu ñu kalee ñii ñii dem mais na projet bi jàll. ku ko porté ci ñoom juróom yeeg wala fukk ci biir parti bi na kenn ku jàll rek porté projet bi. Bassirou candidat la man loolu la dégg naa dégg naa dégg naa dégg naa biram su lay jël sollicité ko waaw. mais sollicité non seulement waxuma sollicité sax plutôt que euh, lu laa bëgg a wax tudd na ko nee na Bassirou dafa ci euh, maanaam ci candidature am li koy validé dafa dem ci turu parti. ban parti waaw boobu éclairage bu leer la joxe foofu mais nag parfois euh, ci biir éclairage boobu noonu Birame Souleye joxe waaw mais am na droit mu ne du wax turu parti politique bi loolu c'est loolu c'est son droit le plus absolu xëy na peut-être xëy na mu ngi bëgg a épargner parti politique boobu. xëy na ay problème yu muy am wala ëllëg wala nit ñi am xëy na ña bokk ca parti boobu xam naa ne daal euh, bu ñu sukkandikoo ci li euh, buram Biram Souleye Diop wax ak euh, li Maître Tall wax Biram Souleye Diop nee na car nee na li am solo bi ko Pape Matar Diallo ci opinion libre dafa wax ne Biram Souleye Diop dafa ne Bassirou Diomaye bi muy dem bi muy dem di déposé pour jël fiche de parrainage yóbbu na récépissé parti politique waaye du ko wax kon ne ñi doon wax ay L57 ñi doon évoqué affaire L57 bu fekkee candidat indépendant la kon L57 boobu noonu si boppam toppatu ko su fekkee candidat indépendant la kon nekkatul candidat indépendant il est porté par un parti politique parti politique boobu bi ko porté si jëm boppam ah kon. ñi wax naan su fekkee Bassirou dafa bëgg a demee candidat indépendant wala su fekkee dafa bëgg a dem il faut mu demee coalition boo xam ne maximum am na ñaari parti politique yu ci am des épicés ñu porter sa candidature biram Souleye Diop nee na Bassirou Diomaye parti politique moo porter sa candidature donc kon loolu leer na te nee na foofu la foofu la ñu sukkandikoo. ñàkk dégg am na fi yaa ngi euh, Bassirou dañ ko choisir seulement pour def. Euh, parrainage waaw suba mën na choisir keneen mm-hmm. comprendre nga waaw donc bu fekkente ni biram dafa génn fële ni Basirou donc moom dem na te bi muy dem ci ci ci euh, turu parti la dem non amul ay version amul ay version kay amul ay version yu bëri boo waxee noonu non amul ay version kii mën a jàpp ni kii la ñu choisir comme comme comme plan ñeneen ñi mën doon jàpp ki kii nekkul seen plan B ñoom ñoom yow Abdou Khadre ay parrainage kese déglu moom parti politique waaw bëri na ñu yor fii ay récépissé man si télé laa nekk di wax. man mi xam naa fi parti politique yoo xam ne am nañ ay récépissé. Hmm. yaa ngi dégg. waaw mais amuñu fukki nit biir Mbour. waaw parti politique yooyu si jëm boppam kenn mënut ta jël récépissé am jox ko Bassirou Diomaye. ça n'a rien à voir pour que pour que euh, Pastef projet de société bi mu porté. waaw mais yow laissez-moi may ma terminer. projet de société bi nga xam ne nii euh, Pastef porté na ko. yaa ngi dégg. Hmm. yow nga am yéene pour Pastef mottali loolu am nga parti politique mais leer nga ne yow amoo ay mbooloo nga jël récépissé euh, jox jox jox ma ko. ma jël trente millions. ah mais mais mais ñu joxe mais duñ joxe loolu. parce que récépissé mun nga able mais récépissé loolu yàgg na Sénégal able récépissé. waaw mais eh, mu demee ko yow yaakaar ne dina fi ñëw jël jël jël caution. non joxe caution par exemple non buy joxe par exemple ñoom ñooy ñoom ñi ñoo porté candidat waa ji récépissé rek la lay abal loolu yàgg a Sénégal. abal la récépissé léegi nag xaalis ba ngay demee yow yaa koy wuti yow candidat ba. waaw léegi moom bu la amee récépissé dafa am yaakaar ni moom du dem quoi xanaa moom amul soxla ci réew mi. waaye loolu bëri. yow bëri na ñuy laaj fii tey jii réew mi loolu tamit war nañ def war nañ ci waxtaana bëri na ñuy laaj tey jii réew mi xam nañ ne mbuur mbuur amuñu fa juróomi nit Thiès amuñu fa juróomi nit mais def nañ seeni def nañ leen loi bi may ñu jaar fi ñu war a jaar ba dem ministre de l'intérieur ba déposé seen seen euh, seen récépissé ba am seen récépissé amuñu ay cordonateur fu nekk sax amuñu ay xam nga parti dafa war am ay coordonnateur fu nekk ku fa xam ne moo fa toogal parti mais bëri na ci ay parti yoo xam ne xamuñ te man am na ci ñoo xam ne xam naa d'accord ah. kon loolu mu mënee ne nekkoon doole la. nañu defal Bassirou Diomaye léegi keneen comme Pastef dissoudre nañ ko maanaam nangu nañu récépissé léegi keneen ku bokkaat biir Pastef bëgg a demaat candidat bëgg a demaat candidat am na parrainage des élus mais amul récépissé bu ko mun na amaat beneen parti politique boo xam ne bu nekkaat fii biir Sénégal boo xam ne amul mbooloo kooku joxaat abal ko récépissé ah loolu lool lool yàgg na Sénégal parrainage des élus bu ñu jëlee Birame Souleye moom tam ko abal récépissé moom <laughs> bien <laughs> yow gis nga parti politique yi ni ñu bëri xaw ma plus de deux cent nangam parti politique parti politique yooyu yëpp bëri na ci ñoo xam ne nii saa yaay seen biir dëkk seen biir koñ sax mënuñ fa revenir